justice et euh, il sort par la grande porte, il a pris une décision euh, sage. dañuy observer nañ budget dafa di Sénégal Sénégal ba Je vous présente les principaux quartiers et attractions de Dakar au Sénégal. Paul, l'université, de port maritime, l'aéroport et de chemin de fer depuis 1870. entendu ici, c'est euh, il sort par la grande porte. parce que tey bu ñu jàpp que majorité bi voté nañ rek ñu ne sénégalais yëpp ñu ci ëpp ci sénégalais yi ñun la ñu àndal Sénégal 18 millions d'habitants tu ci 18 millions yi suñ ko xayma 7 millions kese ñoom ñoo ci inscrire ci fichier bi 11 millions yi kenn inscrit wul ci fichier bi du ñu ay électeurs voté wu ñu ci fichier électoral bi ci loolu 17 millions yi tey suñ ko xaymaa ci pourcentage yu 18 millions de sénégalais yi matuñu 50 des sénégalais tey su doon sax nee nañu 9 millions yi ñoo inscrire mën nañ ne 50 des sénégalais inscrire nañu parce que xaaj mais 7 millions ñoo inscrire muy 39 ci biir 39 pour cent yooyu ñaata nit ñoo dem voté ji maanaam 49,72% ci 39 ci 7 millions yi sax xaaj bi sax demuñu voté ji parce que xaaj bi su voté ji woon tey 3 millions 500 ñooy dem voter. ji.

benn bu jógee ànd kóolute benn bu jógee euh, fële nga xamante ne mooy Sénégal kese benn bu jógee soppi Sénégal donc loolu aussi foog ñu xayma ko xam ne que ba tey jii légitimité amagul assemblée nationale mais li am solo ba am solo rek mooy actuellement Sénégal dafa toll ci liggéey juróomi at lu gaaw la benn at bi mën nañ jàpp ni que jeex na ndaxte 2024 jeex na ba noppi le temps que ñuy installé lii di 15e législature bi ñu jublu ci vote li nga xamante ne mooy loi des finances jëmale ko ci wàllu li nga xamante ne mooy budget du Sénégal dañuy dugg ci 2025 su ñu duggee ci 2025 ñaata at moo ñu dese

jarul sax ngay gestu di xol kan mo la sanni xeer parce que soy gestu da ngay perdre temps alors que sénégalais dafa am lu ñuy xaar ci yow mooy lan mooy liggéey liggéey boobu maanaam mooy lan am nañu ay ressources naturelles muy pétrole bi mi ngi commencé génn gaz bi mi ngi commencé génn tey accord de pêche yi union européenne renouvelé ko nañu xool tey sénégalais yi fi nekk naka la ñuy def ba sénégalais bi ci boppam bana dem nappi ji ci biir su dee dix milliards lañ la doon jox tey par an. maanaam européens yi di leen ko jox mu ñu xool ñaata nappkat ñoo nekk ci Sénégal ku ci nekk ñi xaymaal la joxeel deux cent mille wala trois cent mille francs suñ ko xaymaa loolu ëpp na dix milliards su ko defee sénégalais yi di nappal seen bopp seen jën diko ko jaay sénégalais ci prix bu yomb suñ ko waree importer aussi ñu importer ko ñu jaay leen ko moo gën ñu koy jox ay bateau yo xamanteni ni bateau étranger lañu ñew diko nap suñu géej ba paré su ko défé ñun sénégalais yi wara nap fi duñu am jën buñu nap alors que tay ñoñu ay père de famille lañu donc lolu nañu xol bu baaxa baax naka lañ koy xolé wat tax tay lenn rek la d'accord moy accord de pêche yi nga xamanteni tay union européenne neen du ko renouveler je crois que jarul sax ñukoy koy renégocier ba di ko renouveler wat nañu xol ñaata nap kat ñoo nekk ci Sénégal ndax ndaxte ñu ci bëri tay ñuy jël gal gi manam moy ñan ñi ci bëri ñu demee géej mooy ñan ñi ci bëri ñu doon passeur mooy ñan mooy ñi nga xam ne ay nappkat la ñu woon gaal la ñu xam géej la ñu xam suñu démé ba ba mënatuñu dund seen biir réew dañuy préférer di daaj ay gaal di jël ay nit di leen ci yóbbu te je crois que loolu tey mën na wàññi lii di immigration irrégulier bi donc loolu yëpp ay point la yoo xamante ni mën nañ ci taxaw xool ko bañ a xeeb kenn képp koo xamante ni xalaatam rafet na pour mu développer Sénégal bul xool kii anduloon ak man kii bëgguma woon kii kat su taxawee fii dafa doon wax contre sama projet loolu yëpp weesu na li jot tey maanaam mooy lan mooy Sénégal moo soxla Sénégal moo xewle ndaxte ci boppu Sénégal ngeen nekk ndaxte tey le premier ministre lan lañ koy wax le premier ministre de la République du Sénégal le président Bassir le président de la République du Sénégal Qui nous connaît le premier ministre du parti passif Qui nous connaît le président de la République de Pastef nous sommes le Sénégal Sénégal donc je crois que c'est très important ci biir le dafa am réaction bu am solo Pape Abdoulaye Touré bokk ci ñoom ci Pastef mu xeex ngir projet bi mu jaral ko mu ko que ko fi ba mu par fi ñu dem faji ji ko France lepp ci xéxal projet bi ginnaw nak bi nga xamanteni Pastef majorité de majorité dafa yëkëti ay cadre yu am solo yo xamanteni je crois que dañ ko war déglu ak xel bañ ko déglu xol ndaxte cadre yu mu wax je crois que loolu la sénégalais di xaar ci sous régie des vidéos Pape Abdoulaye Touré bi disponible na ngeen jox ñuko ñu del soit suñu plateau ku ci bëgg participer aussi mën nga ci 77 751 59 59 ñu dem xol ji vidéo Pape Abdoulaye Touré del soir sous suñu plateau ndaxte message bi mu lancé je crois que sénégalais yi lii la xaar tey jii ci actuel régime bi. tey nag amatuñu lay lay amatul sénégalais yi jël nañ lépp jox ko nguur gi man dama dinaa amoon lu ma metti su fekkee ne dañ ñoo jox exécutif te joxuñu ñu législatif parce que bu ëllëgee su ñu yi duñ ko nangu parce que dañ naan joxoo leen ñu législatif waaye tey lay amatul te bii mooy dernière élection man loolu laa gëm te lu ma gëm laa wax man kenn gënu maa bëgg Ousmane Sonko kenn gënu maa adopté projet bi. koo xamante ne pare nga ba ñàkk ci sa bakkan kon kenn gënu la koo bëgg waaye na Pastef ak ñi ànd ak Pastef ak ñi ñu dénk responsabilité ci nguur gi nañu xam benn mbir pour que ñu mën a mobiliser waat ces pour que ñu mën a mobiliser waat cette jeunesse engagée et déterminée bu boobaat nañ teg lu leer nañ seen loxo dootul nekk ci discours de soo leen ñu falee ñu def lii dootul nekk ci loolu waaye bi ngeen ñu faleeg léegi def na ñaari at lii lañ fi tegu tey nag amatuñu lay lay amatul sénégalais yi jël nañ lépp jox ko nguur gi man dama dinaa amoon lu ma metti su fekkee ne dañ ñoo jox exécutif te joxuñu ñu législatif. ñu ko dégg. Touré bokk ci ay militants sympathisants parti Pastef yàgg xeex ci projet bi ñu ràññee ko ci bu baax je crois que lenn moo ko doon métti mu am lay mooy sénégalais yi bañ leen jox majorité parlementaire mais tey amatuñu lay ndaxte lépp lu ñu bëggoon sénégalais yi teg nañ ko ci seen loxo ndaxte suñu leen joxul woon majorité parlementaire bi mën nañu dem ba 2029 ñu ne yéen kat da ngeen ñu jox exécutif mais joxu leen ñu li tax ñu war a liggéey maanaam da ngeen ñu bloqué ngeen jox ko opposition bi donc dañuy séddoo responsabilité bi mais tey jii nag gàcce ngalaama lii di peuple sénégalais jox nañ leen exécutif jox leen benn majorité bu favorable maanaam toog leen bu baax a baax su dee fauteuil la dañ ne toog leen ngeen wéeru ngeen tàllal seen tànk kon lenn desatul lu dul ñi def ay preuve def ay résultats ndaxte tey jii loolu rek moo ci des askan bi loolu la ñuy xaar ci ñoom fii ak ñaari. les lañ ko fekkoon indi nañ ko ba fii maanaam eh, rion yi fii lañ ko fekkoon indi nañ ko ba fii ndaw yi ngi ko nañ ci ba ndaw yi doon jël gis nañu nañ ko ba nga ndaw yi donc loolu la sénégalais di xaar ci ñoom ndaxte jamono ji temps discours jeex na temps wu téesante jeex na temps nekk ci plateau yi na temps wu temps action je crois que nag dafa jot tey ñu sumb ci liggéey bi ndaxte benn at romb na ba tant nous ko ci l'élection en 2024 Dès mars ak novembre nous nañ fi l'élection. installation pareil, installation député yi wala sukkandiku ci ay vote de loi kon donc 2024 nous dina jeex ñi ngi 2025 2025 nous mu 2024 nous mu jeexee non la 2025 di jeexee nga dugg ci 2026 2026 su dirons que yangi sommes ci 2027 donc ci diggante ñaari at yoy normalement sénégalais war nañu sentir seen bop ci li nga xamante def nañ ko ci effort muy le 24 mars yeewu xey jox la majorité avec 54,28 nga le 17 novembre jox la li nga moy majorité favorable fofu ci assemblée nationale avec 131 députés muy majorité confortable bu la permettre lepp lo bëgg décider nga décider ko dans l'intérêt commun des sénégalais et non pas dans l'intérêt personnel des militants ou des sympathisants. Donc tout ce qu'on attend de ce pouvoir et de ce régime, c'est d'aller au travail. Ñom ñoo xam nak naka la ñuy tojee seen bopp ji nax ñoom ñoo àndoon gëm seen projet Ñom ñoo àndoon togg seen projet ñoo àndoon xex ko même su des xex bi dafa déloyal en tout cas xex nañ ko à leur façon ba tay sénégalais jox leen ci li nga xamante ne maanaam la victoire jox leen ci seen jëriñ ba tay ñu tok ci bop li nga xamante ne réewu Sénégal kenn mënu ci dara amul ben sénégalais bu mën taxaw tay ne mën def tout pour empêcher leen ñu continuer ndaxte élection benn moo ci desoon muy législatif yi jeex na abaan na féew keng jeex na tàkk li fi des nag maanaam mooy 2029 Fi ak 2029 yan jéego la ñuy xaar ci ñoom fii ak 2029 yan résultat la ñuy xaar ci ñoom je crois que nag lépp loo xamante ni manigancé woon nañ ko def nañ ko sénégalais yi ñoom ñoo xam ñoo nekk ci dëgg wala nekkuñ ci dëgg en tout cas ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi jaam ak pexeem yàlla ak dogalam yalla limu dogal mooy ñoom Pastef ñoom ñoo nekk ci bopp Sénégal ñoom Pastef ñoo nekk majorité ci assemblée nationale ñoom Pastef

donc je crois que tay lepp lo xamanteni sénégalais yi ñu ngi koy xaar ci ñom rek moy ñu prouver que ñom ñi kat liñ leen denk ils sont à la hauteur liñ doon jaay sénégalais ñi japp ni ka ay rêve la je crois que tay pour tontu say non tontu ñi nga xamanteni dembu ay ennemi projet bi lañu mosuñu gën projet bi attaquer nañu projet bi wax nañu projet bi lu nekk je crois que ben leçon rek ngeen mel leen jox manam moy projet biñ leen doon wax dembu tay li lañ leen doon wax tegal nañ leen ko lu ne fang nak kenn du ci jeex man mi tay nga xamanteni yaguma gëm projet bi musuma gëm seen wax bës bu ngeen tegalee lu concret foofu day jot pour ngeen tëj sama gémmiñ ma daal di leen fekk si parce que loolu la ñu soxla amaana mën nga teg dara man sama xel mënu ma may ma gëm ko keneen gëm ko mais xëy na su ma gisee nag mooy li olof Njaay di wax weddi gis bokku ci donc ñun jamono ji lenn rek la ñuy xaar maanaam lépp loo xamante ni waxoon ngeen ko rek sénégalais yi fexe ba gis ci seen bët ñu éviter détails yi éviter débat yi éviter vaar yi ndaxte toog fii di fàttaliku suba ngoon amul solo li am solo mooy lii ngeen waxoon Euh, il sort par la grande porte euh, il a pris une décision euh, sage. je vous présente les principaux quartiers et attractions de Dakar au Sénégal. Paul, l'université, de port maritime, l'aéroport et de chemin de fer depuis 1870. entendu ici, c'est euh, il sort par la grande porte.